jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëggee bu baax a baax euh, di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci tey nag ñu am mbégte ci dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté ci aar bi ci réew mi ci bitim réew mu di sunu père Kader ñu koy nuyu baax a baax tey nag moom la ñu fas yéene amal waxtaan ci wàllu aar bi ci wàllu actualité euh, père dañ la bàyyi nga nuyu ñu lay suivre fii ci people 221. waaw maa ngi lay nuyu yow di nuyu euh, téléspectateur people 221 yëpp. Hmm. tey mën nañu xam kan mooy kan mooy Kader ak lan moo ko dugal ci aar. waaw Kader euh, waaw man artiste comédien la boo xam ne dama jaar école nationale des arts. Mhm. foofu laa génnee euh, voilà nekk ci théâtre. Mhm. voilà jaar un peu si musique puis si nit di continuer ba léegi nga xam ne dama koy jàngale. Mhm. Euh, ba pare def ay mise en scène donc metteur en scène la aussi nekk aussi ci audiovisuel bi. voilà loolu laa mën a résumé Kader quoi. Mhm. voilà kon foofu mën nañ fa jàngee que ni art nekkul da ngay tëb tëb rek dem jox la micro ngay wax da ko war a jàng parce que yaa ngi wax ni jàng maison des arts. Euh, waaw école des arts c'est normal je pense que euh, menuisier sax mënul def euh, mënoo daaj ay bant te jaaruloo atelier. Mhm. atelier formation la. Mhm. je pense que lépp luy nit di def aussi da nga war a formé nga am si technique. pour que mu mën a yàgg ci yow parce que talent am na. chance am na technique dafa faute bi ci maison de production yi la parce que boo xoolee léegi série yi daanaka dañuy jël nit ci ci image am jël nit ki dafa dafa mën lii wala jël nit ki ngir siiw na par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi ci école yi dañ duñ leen jël. non en fait du benn dafa am man li ma lay wax dem jàngi ko déjà théâtre sur scène la euh, même jeu d' acteur boo naree nag acteur da ko war a jàng. Mhm. Euh, boo ko jàngul doo mën a changer. Mhm. boo seetloo ñi nga xamante ni dañ koo jàng. soo leen joxee rôle bii tey. Mhm. nii la ñuy mel. Mhm. boo joué beneen rôle. Mhm. neneen na mel. parce que foofu danaa fa duggee ci série bi nga xam ne mooy Vautour. waaw ñëw nga nekk fa Baye Fall. Euh, ban message nga doon lancé ci tëni Baye Fall boobu. waaw non boo déggee turu turu bu aji sax si boppam mooy almudo. mooy taalibe. taalibe mooy euh, ki nga xam ne daa modeste jël àdduna euh, def ko lépp luy yoon lépp luy logique. Euh, ku nar a jalgati yoon mu xëccaat la nga nekkaat ci yoon. fu naa rôle boobu nag rôle bu baax la rôle boo xam ni euh, bu yeete la buy yeddaate la euh, bu réew mi soxla parce que tamit dañuy def ay téléfilm mais il faut ñuy véhiculer ay messages yoo xam ni. dina jëriñ jeunesse bi. waaw Almodo benn rôle la aussi boo xam ni day jëriñ jeunesse bi. Mhm. voilà nga tourné ñëw changé ko fee da doon Almodo fi nga ñëw nekk buur. waaw yow buur waaw buur boobu euh, dafa fekk nii ay ji ay jamono ay époque yu wutee la ñuy joué. Hmm. xam nga li ko tax a demee noonu mooy que dañuy yeete it mooy koo naan man sama maam nii la si yax bu rëy laa bokk. man hmm. deretu lii mooy daw sama yaram. Hmm. ñu xool say maam nañ doon doxalee. Mhm. ak yow ni ngay doxalee mu wute. Mhm. loolu lañ doon wane. Mhm. dañuy wane sa maam buur sa maam doon xeexal Afrique sa maam doon xeexal population bi. yow nga ñëw di jaay drogue. yaa ngi rey population bi. ba pare naa man sama maam mooy diw. ah mooy sa maam. après nga ñëw def li nga xam ne Lat Joor bu ko gisoon day mer. waaw loolu moom moo tax. ñuy def plusieurs rôles époque ak mm-hmm. Mm-hmm. présent. Mm-hmm. voilà tey ma dugg ci série bi nga xamante ni mooy série infidèle euh, bi ngeen ci doog a dund mu bëri mu mu bi ngeen ci doog a bëri woon tension sénégalais di ko critiquer yow nga dugg ci naka nga ko dundee ak sa famille. ah non man normal man artiste la moo ko dundee comme film yi may joué rek film film la pour man. parce que nekkoon na série boo xam ne ñu bari ñu ngi koy critiquer. waaw mais critique mënul ñàkk mënoo neex ñëpp. nit mënul def dara xoolal. loo neex ñëpp yàlla sax neexul ñëpp. Mhm. man man bi moom garaawul. Mhm. bu ñu ko critiqué wul rek da tiit. parce que mhm. mooy gars yi prêté wu si attention. et puis c'est normal lii mën na neex kii nit du neex kee. mu mel ni mën naa ci cité benn benn image bu ndaw rek sa doom. doon na génn ak sa jabar. non non doom Maysa. doom Maysa waaw. waaw ci série bi. léegi loolu loolu loolu loolu. non waaw doom. <laughs> père waaw waaw teg na ma ci temps. waaw léegi loolu noonu ban message nga doon lancé foofu. so loolu dafa euh, bari léegi ci jamono ji. waaw non non loolu message bi du si du sax doom bi rek message bi mooy Maysa si boppam dafa séq ak ki doon liggéey jànq. Mhm. seen kër. parce que mhm. ñoom am nañ xaalis. bi ñu séqee kooku ëmb. yaayam géré taxañ ko yóbbu ko dëkk ba jox leen xaalis. Mhm. ba pare kee bu muy mucc mu gaañu génn àdduna. loolu yaay ji xamu ko may sa xamu ko ba yàlla dogal moom mu jëm ëllëg am jabar jabar ji di génn ak doom boobu noonu moom mën koo gis loolu oh. loolu waxeen la maanaam di nga def di nga def ay foot mm-hmm. sa yaay def foot mm-hmm. mais mu rattrapé leen après ci seen àdduna mm-hmm. moo tax man damay dégg ñu naan infidèle day yàq day yàq non infidèle yàqul cest à noo ko bëggee gisee rek noonu nga koy gisee pour man parce que tamit góom moom góom la quoi. Mhm. góom dañ koy wane. Mhm. waaw. Mhm. parce que foofu yaa ngi fay lancé benn message bu am solo que ni ñu déggul wax ji que ni xale bi dañ ko trompé woon léegi xale boobu ñu sànni woon ka ko jëloon doom boobu noonu judd moom la doon génn laat. waaw non sànni yaay ji moo bëggul mu gën ak euh, janq maanaam mu am doom boo xam ne ci janq la jógee. di xeeb leen. jël taxañ xale bi ak ëmbam yóbbu ko dëkk ba jox leen xaalis na leen denc leen seen doom bu jël Maysa yóbbu ko France pour que ñoom dootuñu gisati dootuñu voilà. Mhm. parce que ñoom nee nañ day noobal lañ. Mhm. waaye yàlla xool lu muy def ëllëg ci biir. Mhm. ñu dem ba Maysa bi am jabar après doomam di gën ak jabaram te xamu ko. xamul ni doomam loolu àdduna mooy àdduna mooy fayu rek. Mhm. waaw donc yooyu yëpp ay yeddaata la quoi. yooyu yëpp mhm. yooyu yeete la. Mhm. voilà mais naka nga gisee différence aaru aaru théâtre démb ak théâtre tey. waaw théâtre démb théâtre démb la boobu ay noir et blanc lañ doon def. mais théâtre en couleur la quoi. <laughs> mais mais ci ci côté ci côté ci côté habillement bi ñu gis ni léegi théâtre yi ay ay gros da ciy am ñuy dem ba di wane loo xamante ni daawuñ ko gis à l'époque non man je suis pas d'accord sax ñuy gros mot saaga man vraiment je suis pas d'accord man ay affaire de saaga. Mm-hmm. ah loolu man mosuma ci bëgg boo seetloo man du ma joué ba saaga. Mm-hmm. Mm, du ma ci dugg ñeneen nag li ñuy def yaa moom sa scénario yaa moom kii lu ma ci mën war pour waxtaanee ko dinaa ko waxtaanee mais man du ma joué waxu saaga. mais ñàkkul ni mës nañ laa proposé série boo xamante ne euh, yooyu da ci am ay saaga wala naka su dul. non non man kenn mosuma ko proposé. man man man am naa sama fulay bopp man wax dëgg yàlla man am na yoo xam ne man boo ma xamee sax di nga xam ne dama ko def yaan mm-hmm. mm-hmm. waaw parce que parce dañu war a defar société bi dafa war dañ ko war a defar mm-hmm. mais waruñu ko yàq pour mhm. waaw ma ñëw ci li nga xamante ne actualité la fan yi mu ngi rëmbee réseaux yi mu di suñu papa ji Lamine Ndiaye yàlla na yàlla fëgg bopp bi yàlla wéral ko mu doon expliqué benn trahison boo xam ne dafa am ci digganteem ak Sanex kenn dañ ko mosoon a zéloo ay séries waroon ko jox xaalis yu ko dawloo ba mu ni polémique bari ci aar loolu moom mënu ma ci wax lu bëri wax dëgg yàlla ñaa ñi ko seq ñoom xam nañ histoire bi nu mu demee. Mhm. man fekkeewu ma mhm. xaw ma loo xamul nag wax dëgg yàlla da nga cey man waaw man ci interview mu wax mais comme tenants yeeg aboutissants yi la ca biir rek da mu dee man xaw ma ko wax dëgg yàlla mënuma ma cee wax. mais trahison ko dund nit joué looloo ba pare yoral la sa xaalis sa ay sponsor ak yooyu. non c' que des fois il faut que ñu comprendre tamit que euh, sponsor du joxe xaalis yëpp léegi li am ba am mooy lépp lu ci am da nga war a waxtaan ak acteur bi. Hmm. ki nga xam ne day joué nga war koo fay. Hmm. man communication rek la quoi parce que tamit ñàkk communication dina indi ay njort. ngay njort fekk njort rek la du loolu mais nañ ko waxtaanee je pense que loolu tamit euh, warul xaj suñu diggante ñun ñëpp war nañ mën a waxtaanee loolu ba trouver et j'espère je pense que dinañ trouver terrain d'entente xëy na benn mésentente la rek boo xamante ne entre ñoom voilà mésentente rek lay doon mhm. mais euh, des fois nga jouer euh, xaalis bi duggagul nga xaar mhm. loolu moom dañ koy day daf ñuy dal mhm. parce que tey suñu audiovisuel Sénégal duñu am budget bi ba pare soog a def bi commencé ban annonce wuti sponsor muy ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ñuy dem alors que bu dee ñeneen ñee tubaab yi par exemple ñoom dañuy boucler seen budget ba pare moo tax yow dañu la naan tel jour ñaata jour nga am am tel jour lay commencé tel jour lay jeex donc ñoom boucler nañ ko mais ñu ngi ci ñu ngi tendre vers l'industrialisation de de de l'audiovisuel quoi ñu ngi ñu ngi jéem pour def ko industrie euh, je pense que voilà dañuy jàppalante. dañuy jàppalante producteurs yi nañ jàppale acteurs yi acteur yi aussi nañu jàppale producteurs yi. pour que ñu mën a am cinéma boo xam ni bu viable au Sénégal. mais ñu gis ne aussi tamit ci côté mag ñi nii su ma nee mag ñi tey mën naa ci cité du ma ne Lamine Ndiaye mais mën naa ci cité comme ku ci mel ni ay pen euh, génération boobu noonu mu mel nii dañ leen a xaw a ci art parce que koo ci gis la mu doon représenté Sénégal. démb nga gis ko tey da koy xaw a doo ko yërëm mais da nga naan kii méritewul lii ak li mu def Sénégal foofu négligence bi. ci loolu moo tax ñu war a quand même toog seetlu waxtaanee mbiru théâtre ci boppam. Euh, ñun ñii nii da nga fekk léegi ñu jógee ci ministère bi pour waxtaan ci journée mondiale du patrimoine audiovisuel bi nga xam ne dañ koy organiser comité de relance du théâtre sénégalais moo koy organiser fii le 27 octobre. fii ci Blaise Senghor. boobu dañuy woote panel boobu pour mën a waxtaan ci li ngay wax nii. théâtre bu njëkk ba captation yi ñuy doon am lan lay jëriñ tey ak tey naka lañu war a def pour que li ngay joué tey mu jëriñ la ëllëg. damay jox exemple théâtre sur scène soraano lay gaay di dem. mais tey ñu bëri dematuñu soraano mais naka la waa soraano ak ñun ñii nga xam ne dañu joué théâtre naka lañu war a mën a def ba joué def ay captation ñu mën ko dugal vidéo muy am xaalis ñu mën ko dugal ñu mën ko dugal Netflix muy am xaalis. Mhm. loolu lañu ñu war a xalaat mais bu njëkk ba da ngay rek après ñu fay la sa xaalis nga dem. Mhm. mu jeex. Mhm. loolu la mais dafa laaj réflexion tey pour mën a xalaat patrimoine parce que pen patrimoine la mo jaañ patrimoine la dem bi mi ngi nii dem na yàlla na ko yàlla yërëm tu vois ñun ñëpp ay patrimoine lañ donc loolu moo tax tey ñu mën a toog war a toog xalaat waxtaan Euh, euh, sur le patrimoine mhm. audiovisuel ci boppam mhm. voilà mhm. mais ñu gis ni soleil levant souvent dafa bari ay critiques yoo xam ne gars yi dañu leen koy critiquer est-ce que loolu ci ñoom en personne la wala ñoom ñi nga xam ne dañ koy siqal la maanaam critique comme critique souvent boo xoolee ñu bari dañoon génn di dal ci loxo Sanex ku ci mel ni Paco mosoon na génn di leen critiquer am na benn série bu fi amoon doon nañ génn di leen critiquer non man wax dëgg yàlla mosuloo ci li may wax li ma la wax sànq laa lay waxaat man lu ma xamul te wóoruma xaw ma histoire bi nu mu demee. Mhm. dëgg yàlla bëgguma ci wax. Mhm. parce que dara wóoruma ci. Mhm. Euh, na ñuy moytu réseaux sociaux yi tamit réseaux sociaux yi da ngay dégg rek ñuy wax après nga interpréter fekk da ngaa juum. waaw donc man pour man vraiment bëgguma wax ci wax yoo xam ne ay problème wu ñaar ñoo xam ni samay ñooñ lañ. ñoo xam ni war nañ ko mën a régler entre ñoom si communication man maa ci bëggul wax. mais te est-ce jotul tamit ki nga xamante ni mooy Lamine Ndiaye donte moo mag la. tey est-ce que jotul yéen ngeen woo leen sur la table jël saa neex mi nga xamante ni moom jàpp na ni moo ko tooñ. ñu def mais dégg naa ni Mame Matar def na ko de dégg naa waaw mais mais est-ce que yéen njëkk njëkk warul woon njëkkee ci yéen. balaa loolu di. mën na mujjee ci ñun bu njëkkee ci keneen mën na mujjee ci ñun nit mhm. mais je pense que ñoom war nañ ko def entre ñoom man je pense que war nañ war nañ ko waxtaanee quoi. Mhm. war nañ ko waxtaanee. Mhm. mu jeex. parce que mën nañ ko waxtaanee mën nañ ko gérer loolu man pour man du problème de. lu ñu mën a gérer la. lu ñu mën a gérer la entre ñoom. wax dëgg yàlla. trois bi mu jeexee yàggul. waaw loolu affaire jeexagul sax mu ngi daw nii nii nii. Mm-hmm. ñu ngi ci cinquantième épisode. Mm-hmm. waaw mais trois bi man bokk ma si. man mm-hmm. dee man dee naa. <laughs> dee naa <laughs> ci maison production yi ku la soxla rek mën na liggéey ak ah man artiste la non man artiste la ah, man mm-hmm. artiste man artiste su artiste tënk doo tënk sa bopp. Mm-hmm. dëgg la maa ngi liggéey ak Event Prod waaw juboo nañ nekk nañ mais tënk ma sama bopp. Mm-hmm. c'est normal maa ngi war a joué ji waat euh, si ak waa RAES man damay mais man du du léegi laa commencé joué léegi laa commencé joué si si série yi mais man depuis 97 maa ngi joué cinéma. ne léegi la gars yi xam li rek si hmm. série yi moo tax mais man hmm. depuis 97 avant 97 sax le prix du pardon man ak bu Mansour Soro Wade man joué naa ko. Hmm. David bu euh, Moussa Thiam joué naa ko waaye kay surtout 95. c'est là commencé joué film waaw. Ah. yi moo série yi daa xew rek réerul Kanel Piccininigo réerul parce que boo ma gisee Piccininigo ngay wax Piccininigo réerul mooy sama tur artiste déjà mais euh, euh, sama liggéey du du way man sama liggéey théâtre la moom laa jàng moom laa jàng la tey donc ak jouer cinéma jeu d'acteur ak yooyu loolu mooy sama liggéey léegi lu yàlla dogaloon la rek jaarale ko waaw yëfu yàlla la rek comme je dis art bi chance la art dafa am talent yàlla moo la koy may aar yëpp yàlla la sax yëpp yàlla la ak li ngay jàng mooy technique mais presque soixante quinze pour cent yi yàlla moo lay def artiste. maanaam tey amul ku dul artiste ku ñu mën a woowee créateur à part yàlla yàlla mooy créateur. artiste inspiration yàlla moo ko koy dee dañu naan euh, l' inspiration est divine ça vient de Dieu donc mën naa am yàlla mooy dee artiste kon nag yàlla bëgg na artiste de. Mm-hmm. ah voilà euh, kontaan nañ vraiment euh, ñi ngi jégalu ci sa bi nga xamante ni jël nañ ko donte da ngaa nekkoon ci yoon sonn aussi. tey sa mot de la fin. ñoo waaw ma maa ngi maa ngi profité si seen canal nii euh, People 221 pour woo ñi nga xam ni dañu war a waxtaan ci théâtre pour xool théâtre fu muy fu muy fu muy nu muy suqalikoo nu muy développé woo ñu ngi woo ñëpp pour ñu ñëw la vingt 27. ñu waxtaan si waxtaan si def panel waxtaan si ak waa ministère bi wax de la culture e du patrimoine euh, ñuy waxtaan si ak ministère de la communication ministère de la jeunesse ñëpp ñu toog ñu waxtaan si suñu devenir dans dans dans l'audiovisuel suñu devenir dans le théâtre en général ak naka nañuy bo nu ñuy développer suñu théâtre voilà. Mm-hmm. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon suivre fii ci People 221 ñu ngi leen di jox yeneen dig daje suñu yeneen émission wasalaam.